fanweer ak juróom ñett njariñu fukki ndigal yi salaamaaleykum mbokki yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub wi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci ñaari njàng yi weesu gisoon nanu ni yàlla wàcce woon ci tundu sinaay ci biir safara ak dënnu ak i melax di jottali bànni israel fukki ndigalam yu sell yi ci ndigal li jëkk yàlla ne woon na leen bul am yeneen yàlla ndare man ci ñaareel bi bul sàkkal sa bopp xërëm ñett bul jëfandikoo turu yàlla aji selli ji di yàlla seen boroom cig neen ñeent deel fàttaliku bésu nooflaay bi def ko bés bu sell juróom teralal sa ndey ak sa baay juróom benn bul rey nit juróom ñaar bul njaaloo juróom ñett bul sàcc juróom bul fen fukk bul bëgg yëfi jàmbur loolu mooy fukki ndigal yi yàlla wàcceel musa ak bànni israel yàlla tegoon na leen yéen bu diis ne leen ku mën a matal lépp li fukki ndigal yi laaj kon dinga mën a dund ak yàlla ba faw waaye ku sàmm yoon wépp te xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp te dinga xaajale kook yàlla ba faaw looloo doon yoon wu sell wi yàlla dénk bànni israel ci tundu sinaay yàlla santoon na leen ñu déggal ko ci lépp waaw ci lépp ndax bàkkaarkat yi mënoon nañu sàmm ndigali yàlla yépp mënula nekk waaye terewul loolu mooy li yàlla aji sell jil di laaj li nu bëgg xam tey nag mooy lu taxoon yàlla yenn doomi aadama yen bu diis boobu boobule lu taxoon yàlla jottali bànn israel ay ndigalam bi mu xamee xel ne kenn mënu leen a matal gisoon nanu ba noppi ni bànni israel waxe woon ne lépp lu aji sax ji wax dinanu ko def waaye yàlla moom xamoon na ne mënuñu matal lépp li mu bëgg bànni israel xamuñu seen ñàkk doole ngir matal coobare yàlla ràññewuñu woon ni ñu soreyoog yàlla ak ndamam lu rëy loolu moo taxoon nag yàlla wàcceel bànni israel fukki ndigal yu mat sëkk ne leen sàmm leen lépp sungeen ko mënee waaye ku ci jàdd lenn ndigal rekk dinga xaajale kook man ba faaw li yàlla façon yéene def jaare ko ci ndigal lu diis loolu nag mooy won bànni israel seen ñàkk doole ngir neex ko yàlla xamoon na ne bànni israel mënula sàmm ndigalam yépp wante ñoom ci seen bopp ràññee guñu woon loolu bànni israel dañu meloon ni boroomi diine ci sunu jamonoy tey ñuy xalaat ne yàlla dafa bëgg nu fexe def lu baax rek te e, ca bésu penc ba bu fekkee ne sunuy jëf yu jub ñoo ëpp sunuy jëf yu bon kon yàlla dina nu wax ne kaay bokk ci sama jataay ba faaw waaye ñiy xalaate noonu dañu juum te xamuñu mbind mi mbaaselaayu yàlla yàlla aji leer la te mënula nangu dara lu matul mënula dékku benn bàkkaar sax ci misaal ñaata bàkkaar la sunu maam aadama waroon a def ngir yàlla dàq ko toolu àjjana fukki bàkkaar walla téeméer mbaa boog junni déedéet benn bàkkaar rekk te aadama waroon a génn benn bàkkaar te aadama matatul woon fa kanam yàlla benn bàkkaar te mënatula jege yàlla benn bàkkaar te faw mu dee benn bàkkaar te mu daldi yelloo safara sudul fay mukk ci lu wér yàlla ku sell ku ñàkk caaxaan looloo taxoon mu wax bànni israel ne ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp kon nag ci gàttal bu dee noonu la sellaayu yàlla mel li nu bëgg xam mooy lu tax yàlla jottali bànni israel ay ndigalam bi mu xamee xel ne kenn mënu leen a matal tontub yàllaa ngi nii te jar na nu déglu ko ak xel mu ne sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla solop ndigal li daal mooy wone bàkkaar lan mooy solop fukki ndigal yi kon yàlla nee na solop ndigal yi mooy wone bàkkaar ndax jàpp ngeen li kàddug yàlla wax lu tax yàlla jotli muusa ak bànni israel fukki ndigalam yu sell yi ndax dafa leen joxoon ndigal yooyu ngir ñu mën leen a sàmm ba yelloo texeeg àjjana déedéet loolu mënula am sax ndaxte yàlla nee na ku bañ a sàmm lépp ku alku nga ndax doomi aadama mën na déggal yàlla ci lépp li mu santaane ndax mënees na tànqe ndox mu set ci njaq lu tilim mukk loolu mënula nekk lan mooy solop ndigal yi nag mbind mi nee na solop ndigal yi mooy wone bàkkaar yàlla joxewul ndigal yi ngir musal ñu ci àtteem waaye yàlla dafa leen joxe ngir wonnu ne ay bàkkaarkat lanu te danu soxlo ab musalkat ndax loolu leer na ci sa xel nanu ko fexe misaal fukki ndigal yi dañoo mel ni ab masinu rajo opitaal su ma feebaree te xamuma lu ma dal kon xëy na fajkat bi dina seet sama yaram ci rajo lan mooy solop radiographie boobu solom lenn rekk la dafay wone li doxul ci sama biir yaram naka noonu itam ndigal yu sell yi yàlla dénkoon musa dañoo mel ni masinu rajob hôpital solom mooy wone bàkkaar bi nekk ci sama biir xol naka la ma fukki ndigal yi mën a wone bàkkaar bi nekk ci man xanaa nii su ma méngalee sama dund ak yoonu yàlla wu sell woowu dinaa gis ni ma sore yoog yàlla ci samay xalaat ci samay wax ak ci samay jëf dina xam xel ne tooñ na yàlla tooñ naa nit te yowma texe àjjana di jataayu yàlla kon ni masinu rajo hôpital ame solo ngir wone lu doxul ci yaramu nit noonu la fukki ndigal yi ame solo ngir wone lu doxul ci xolu nit wante ni rajo mënula faje ki feebar noonu itam la fukki ndigal yi mënula faje sama xol bu fees dell ak bàkkaar ngir loolu mën a am faaw ma dellu ci fajkat bu mag bi maanaam ci yàlla ndaxte moom kenn am pexe ngir musal ma ci musiba mi war a dal ci sama kaw ndax bàkkaar bi nekk ci man xëy na am na kuy wax naan xaral tuuti sama waay man nit ku baax laa ah. melu ma na ñeneen ñiy sàcc di def lu jubadi te di njaaloo su fekkee noonu ngay xalaate li wér mooy ràññeeguloo selaayu yàlla li nga war a xam mooy ci bés penc ba yàlla du la méngale ak sa moroom miy boroom bàkkaar wante dina la méngale ak yoonam wu sell yoon wi nga xam ne moo wax ne ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp yàlla mi ne bul njaaloo teg ca it ne bul fen ku njaaloowul nag waaye nga fen benn yoon rekk jàdd nga yoon wépp te doo mën a dugg ci jataayu yàlla ca ajana te mbind mi nee na dara du fa dugg lu am sobe mbaa kenn kuy soobu ci ñaaw ñaawteef wala fen li wér peng mooy mënunu neex yàlla mukk ci sunu pexey bopp moom la kàddu yàlla wax bi mu naan ni ku am sobe lanu mel nun ñépp te sunuy jëf yépp ba xasaw ni sagar yu tilim yàlla teg na ñépp tooñ ku jub amul du kenn sax ñépp jeng nañu kenn du def lu baax du kenn sax ñépp a fa kanam yàlla ñépp a ba joteetuñu ndamu yàlla léegi nag bu fekkee ne noonu lanu mel fa kanamu ki nu war a àtte nan mën mëne rëcce mbugalam lu nu war a def ba mucc ndax amunu jenn yaakaar ci sunuy pexe bopp kay amunu jenn yaakaar waaye jërëjëf yow yàlla mi rabatoon pexe ngir jot doomi aadama yi ci mbugalu bàkkaar nanu wey ci saar wi léegi kon ba gis wan yoon la yàlla tëraloon ngir bànni israel mënoon a rëcc ci alkande ji leen yoonam wu sell wi indil ba tey nu ngi jàng ci tawret téereb gàddaay ga saar ñaar gannaaw ba yàlla jottalee bànni israel fukki ndigalam yi ci kàddu yu dëgër nag mbind mi nee na mbooloo mépp teewe dënnu yi melax yi liit gi ak tund wi saxaar mbooloo ma gis tiit dem taxaw fu sore waaye musa jege ci niir wu lëndëm wi yàlla nekkoon noonu aji sax ñi ne musa nii ngay waxe ak bànni israel gis ngeen yéen ci seen bopp ne ci kaw asamaan laa doon waxe ak yéen kon di ngeen ma defaral rendikaay bu ñu tabaxe ban di ci def saraxi mala yu ngeen di lakk sarax yuy wone jàmm ji ngeen am ak yàlla ci bépp béréb bu may fàttaliku sama tur dina ñëw ci yéen te dinaa leen barkeel noonu musaa bindoon na cib téere lépp li ko yàlla waxoon te ci suba teel musa jóg defar rendkaay ci taatu tundu sinaay ni ko ko yàlla waxe woon ba mu ko defaree ba noppi mu sant waxambaane bànni israel ñu rend ay yëkk dékku seen deret ci ay ndab te lakk yàpp wi ci kaw rendikaay ba noonu musa jël deretu yëkk ya wis ko ca kaw rendikaay ba ak téere ba mu bindoon fukki ndigal ya ca mbooloo mépp te naan lii mooy deretu kóllëre gi leen yàlla tëralal noonu gis nanu musa ci ndigalu yàlla ni mu defare ab rendikaay rendi ci ay mala te wis deret ji ci kaw mbooloom israel mépp lu waraloon loolu lépp xanaa lii yàlla dafa bëggoon jàngal bànne israel li mu jàngaloon seeni maam aadama ak abel ak noyin ak ibrahima ak i sëtam naan bu deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am képp ku bëgga jege yàlla war nga ko jege ci matuk deretu sarax su amul sikk lu taxoon yàlla santaane saraxi mala yooyu ndaxte yàlla ku jubla te yoonam wu sell wi neena peyug bàkkaar bi gëna ndaw sax mooy dee ak alkuba ba fu sore yàlla ak ndamam lu rëy te ndegam bànni israel mënuñu sàmm ndigalam yu sell yépp faaw ñu jébbal yàlla ay sarax yu amul sikk ngir lu tooñul mën a wuutu ku tooñ wante saraxi mala yi mënuñu dindi mbugalu bàkkaar doomi aadama ba faaw seen njariñ moo doon muur bàkkaari nit rekk ba kere yàlla yónni ramukat bu sell bi ci àddina tey ji nag xam nanu ne musalkat boobu ñëwoon na moom rekk moo doon ki déggaloon ndigali yàlla yépp te mottali lépp lu jub ndegam amul woon benn bàkkaar yelloo woon na joxe bakkanam ni sarax suy tindi bàkkaar naka noonu ci kaw sarax su mat sëkk si ramukat boobu joxe yàlla mën na la àtte ni ku jub soo ko gëmee rekk ndaxte moom mi amul woon bàkkaar gàddul na la sa boru bàkkaar amin mbokk yi ci kaw li nu jàng tey nanu jéem a fàttaliku ñaari xalaat yu am maanaa lool ci bu jëkk xam nanu xel ne kenn mënula texe ci kaw sàmm fukki ndigal yi dégluwaat leen li mbind mi wax ci loolu ñiy wekku ñépp ci jëfi yoon wi ñu alku lañu ndaxte bind nañu ne képp ku dul topp lépp lu ndigali yoon wi santaane yàlla na alko ndaxte ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp ci lu wér kenn mënula mucc ci kaw sàmm ndigal yi solop ndigal yi mooy wone bàkkaar ñaareelu xalaat bi nu wara denc ci sunuy xel mooy yàlla dong am pexe ngir musal bàkkaarkat yi déglu leen li mbind mi wax ndaxte jenn yàlla képp moo am ak benn ramukat képp diggante yàlla ak nit ñi di nit ki kirist yeesu mi joxe bakkanam ngir jot ñépp ndaxte ci yiwu yàlla ngeen mucc ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu waaw ci lu wér yàlla dong nga am pexe ngir musal bàkkaarkat yi kon mbokki déglukat yi ñaari xalaat yooyu lanu leen di bàyyee maanaam kenn mënula mucc ci kaw sàmm ndigal yi te yàlla dong nga am pexe ngir musal bàkkaarkat yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen fàttali ne su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis kon ba émission bi ñëw yàlla na leen yàlla leeral ci li nu jàng tey dangeen ngeen fàttaliku li mbind mu sell wax naan sàmm yoon wi taxul kenn jub ci kanamu yàlla xolob ndigal li daal mooy wone bàkkaar